xawma ndax jël ngeen temps asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu xaw ma ndax jël ngeen temps pour déglu le président Ousmane Sonko bu ma nee déglu mooy déglu xam nga damay ne nit ñi toujours déglu dégluwaat euh, boo bañee juum ci dara da ngay déglu nga dégluwaat le président Ousmane Sonko nous a parlé et il nous a parlé. et il nous a parlé. Et comme il vous l'a dit, on vous l'a dit, euh, il ne se victimise pas. te sous-région Afrique bi yëpp gis nañu li nga xam ne moom moo xew Sénégal démb ba ci xale yi juddu démb xam nañu li xew Sénégal euh, bu Ousmane Sonko amoon admiration un million wala deux million wala trois millions des Sénégalais aujourd'hui il est admiré par au moins dix millions de sénégalais waaye comme ni mu koy waxee toujours euh, waxtu xonqal bët dafa passé te comme on l'a vu dans le passé de notre continent gis nañ ko ci Patrick Lumumba gis ko ci Thomas Sankara gis ko ci yeneen leader yi et toujours euh, li ñu gis mooy xam ngeen toujours comme niñ koy waxee ñu ne pour nga attaquer paaku Buffalo il faut nga isole leen et gis naa démb ndeysaan ay doomu gaynde yu doon seetaan ñuy lekk seen papa seen yaay gaynde loolu moo xew démb Sénégal Sénégal li fa xew démb mooy on a failli notre mission en tant que soldat on a fay notre mission ñun ñëpp ay soldats on est resté à côté ñuy seetaan ñuy yóbbu suñu général démb ñoo ñu ko yóbbu buñ ko pikiiroon wala ñu posone ko wala ñu rey ko ñun qu'est-ce qui était lan moo doon suñu responsabilité démb dañu toog ñun ñëpp population sénégalaise bi nga xam ne ñun ñoo di dàq yuuxu ñun ñoo daan yuuxu résistance résistance résistance ñu seetaan président Ousmane Sonko ay Samba boy ay criminel ay ay ay ay doomu xaram ay ay mbaam ñëw jël ko nguufaan ko yóbbu ñun lan la ñu mën a tiitaroo ñun lan la ñu mën a taxaw ñu tuddee suñu bopp ay révolutionnaire ñu tuddee suñu bopp ay patriote on est des défaillants loolu lañu ñu doon démb li wone c'est de la défaillance ñun ñoo toog ay doomu sénégalais ñuy ay góoru yàlla te pourtant wax na ko ci ay waxtaanam ñun ñoo ko dégluwul nee na bu ñu jógee ñun sénégalais nekk na tapet boo xam ne bu ñu tojee benn grenade lacrymogène sax ñëpp daw est-ce que seet ngeen ne président Ousmane Sonko dem toj nañu verre bi ci kawam he didn't even flinch maanaam bët yi keful sax mu pare nag muy génn mu pare mu génn këram ñuy sànni ay grenade lacrymogène est-ce que benn nit gis na président Ousmane Sonko mu leen di daw walla muy lakkatu wala muy def lii wala muy def lale non he didn't flinch muy dox doxam doxu góor yàlla di jubal yoonam droit sur son chemin démb on naa failli notre mission wax ji nag dafa doy on a failli notre mission xale yëpp a ngi ci TikTok bi TikTok bi vous êtes des champions TikTokers au Sénégal des champions TikTokers yéen a ngi def liggéey bu jaggi dayoo duñu leen ko wàññil waaye pourquoi pas le terrain vous êtes sur le terrain vous êtes des jeunes vous préférez mourir dans la misère vous préférez vivre dans la misère yéen lii ngeen di dund nii moom ngeen bëgg moom ngeen ñaan yàlla da ngeen ñaan yàlla ngeen toog di misère man nelaw ma j'ai pas dormi bu ma seetaanee vidéo président Ousmane Sonko ak jeunesse sénégalaise bi ni ngeen toll ak ni ngeen baree ak sen âge minimum âge c'est moins de trente ans au Sénégal ngeen toog ñëpp a ngi ci TikTok bi ñëpp a ngi sol seen waa président Ousmane Sonko ku nekk bëgg nañu ñu gis koog Sonko ku nekk bëgg naa photo woog Sonko ku ne bëgg naa appeler Sonko ku ne bëgg naa wane ne moo gën a jege Ousmane Sonko waaye ba problème bi amee kenn gisu leen furaas du benn nit bu ma xam ci ñi siiw ci ñi fama ñu gis leen ci wetu président Ousmane Sonko bi mu leen soxlaa dem wax na leen ko ñëpp koy woo waa jërëjëf waa ñu ngi lay ñaanal waa vraiment yal na yàlla yàlla yàlla béy sa tool yàlla yàlla béy sa tool Ousmane Sonko soxlawul ay ñaan fi mu toll nii xeex la soxla Amérique du ay ñaan moo tax mu yegg fi mu yegg France du ay ñaan moo tax mu yegg fi mu yegg même Israël bu ndaw bii réew mu ndaw bii ñu ñuy manipuler duñ ay ñaan moo tax mu yegg fi mu yegg xeex mooy dagg buumu njaam du ay ñaan ñaan baax na lool waaye ñaan dafay ànd ak jëf yal na ma yàlla may ay milliards nga toog sa kaw lal dërëm du la fa fekk yal na ma yàlla may gudd fan ak wér nga nekk sa di lekk graisse di naan koka di naan lu bon dara doo ko am yàlla yàlla béy sa tool le président Ousmane Sonko on a failli notre mission hier ñun ñu tuddee suñu bopp ay solda ñu tuddee suñu bopp ay combattants ñu tuddee suñu bopp ay activistes on a failli notre mission ay tapet lañu ñun duñu ay nit on n'est même pas des personnes on n'est même pas li ñag yi di wax ñun bokkuñu ci góor bi yàlla di sàkk góor ñun waroon nañoo bañ a sàkk naka la ñuy toogee di seetaan président Ousmane Sonko saa bu grenade lacrymogène ne tëll ñëpp disparaître saa bu grenade lacrymogène tojee ñëpp disparaître j'ai eu tellement honte seetaan leen ko moom ci boppam ñuy sànni ay grenade lacrymogène mu taxaw jël ay responsabilités ñun bi grenade lacrymogène ne tël ñun ñëpp ñu daw xoolal lii lii mooy Patrice Lumumba boo leen xoolee Patrice Lumumba mu ne l'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera au nord et au sud du Sahara une histoire de gloire et de dignité Patrice Lumumba keroog biñ koy yeew waa dëkkam yépp ñu ngi taxaw ñu seetaan ñu yeew ko ba mu dëgër yóbbu ñun démb ñooñu mënoon nañoo yeew président Ousmane Sonko yóbbu ko à l'endroit inconnu dootuñ ko gisaat gisuñu kenn ci wetam avocat maître Ciré Clédor l'homme soixante dix ans wala soixante cinq ans moo nekkoon ci wetam ñëpp daw bàyyi ko après on se dit voilà ay guerrier bu suba voilà ku nekk dem taxaw ci wetu président Ousmane Sonko photo wu ak moom voilà jox ko loxo voilà lëngu ko may dara voilà nangam nangam mais vous nous emmerdez c'est pas ça le combat le combat se mène sur le terrain ay xale yu ndaw ngeen waroon dem tey def tànt kër di euh, buntu kër Ousmane Sonko yéen chaque jour Ousmane Sonko warul soxla garde corps Ousmane Sonko peuple sénégalais bu jeune bii ñii ma gis Ousmane Sonko warta soxla garde corps waxuma nag ku koy dem lekkal ay lekkam ndax sénégalais xam nañ leen ci loolu bu ma waxee lii rek ñëpp dem toogi ci buntu këram di xaar añ jot déedéet ku nekk na nga jënd sa añu bopp bu dee sandwich ngay añee bu dee gerte caaf ak mburu ngay lekk bu dee ndox ngay naan boo paree nga dem toog buntu kër Ousmane Sonko nga sàmm ko comme ni góor yàlla yi daan sàmmee yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañu daan xiif bay takk xeer seen biir yi billahi ñu ñoo bon billahi sénégalais yéen ay défaillant ñun naka la ñuy toogee ñuy seetaan histoire di ñu raw ñun naka la ñuy toogee di seetaan naka la ñuy mën a expliquer lii noonu yi ñii naan waaw bu dee woon ma takk soxnaam bu dee woon ma def ko nii ñu ñuy manquer respect et on est là à écouter on écoute on rigole le président Ousmane Sonko dafa rëcc assassinat tente d'assassinat la il a été kidnappé hier dafa rëcc assassinat dama leen koy wax nag il a échappé une tentative d'assassinat parce que mënoon nañ ko assassiner pur et simple ñi doon toj verre yi noonu ay tubaaba ngi ci mënoon nañ koo dóor bal mënoon nañ koo jam euh, euh, pousse poison mu dee tentative d'assassinat il a refusé de sortir de sa voiture parce qu'il comptait sur la population sénégalaise Il pensait que la population sénégalaise sera la et sera debout et fera face à ces policiers ngeen daw ñëpp daw ñii jaar nii ñii jaar nii yéen ngeen yaakaar ne population bu debout déggu leen Thomas Sankara une population debout effraie même les bombes atomiques yëgu leen déggu leen loolu population bu jóg benn nit da koo mën a arrêté ba ay policiers dañ ko mën a arrêté yéen ay tappet ngeen ay tappet ngeen man xale sénégalais ay tappet ngeen bàyyi leen tiktok bi ñàkk ngeen fulla ñàkk fayda ñun bu ñu neexoon ñaata yoon laa leen koy wax bu ñu neexoon du ñu xeex man xeexaluma Sénégal pour dem toogi Sénégal xaar ay privilège ñu bari ci yen dañ may woo chaque jour naka sa xarit Ousmane Sonko naka sa rak man Sonko yor naa numéro am depuis quatre depuis deux mille dix huit boo ko laajee woowuma ko lu mat juróom yoon parce que je n'ai pas besoin de le parler su ma ko jotee c'est pour ñaanal ko ci julli wala xool jàmmu yaramam c'est tout bu ma gisee ne il est fragile on n'a pas besoin de se parler ñun soxlawuñu loolu suñu wax du Sonko la ñu soxla déedéet soxlawuma Sonko ñun li ñu soxla mooy senegal développé te Sonko moo ñu ci mën a dimbali naka la ñu mën a toogee ci état ñuy seetaan ay bandi ay nit yoo xam ne ñemew loo leen dénk sa xaalis nga leen di dénk nit ki nga gën a bëgg ci àdduna bi Macky Sall kenn ci yéen ñemewu ko denk jabaram ñemewu koo dénk doomam ñemewu koo dénk xar bi nekk seen kër naka ngeen koy bàyyee ak Ousmane Sonko on a abandonné le président Ousmane Sonko hier On l'a abandonné. Quand il a vraiment, quand il a vraiment eu besoin de nous, nous ko Man buma doon mom demb j'allais arrêter la politique. Ma xamné sénégalais jarta xéxal. man su ma doon Ousmane Sonko démb démb laay raxasu ci senegal lay bàyyi politique ma wut asile génn réew mi génn ak sama njaboot dem comme ni ñëpp di def Sonko buñ ko seetaanee Ils vont l'assassiner. sénégalais warkat ngeen ay warkat ngeen doo leen ay góor doo leen ay góoru yàlla man xale sénégalais xeeb naa leen démb je n'ai plus confiance en vou je n'ai plus confiance en vous man gëmatuma leen man gëmatuma leen Billahi, wallahi, tallahi, I don't believe in you anymore. naka ngay toogee sa yaakaar nit ki nga gëm nga ne kii la ñuy xeexal ñun kii lañu bëgg mu jiite ñu kii lañu bëgg mu changer ñu suñu réew ngeen toog seen biir kër yi bàyyi ñu ñu naroon ko Patrick Lumumba démb Sonko il allait être Patrick Lumumba hier image yu Sonko bi ma xool ak image yu Patrick Lumumba biñ ko yeew dugal ko ci oto dem yóbbu ko rey ko yëpp benn la ngeen defee ne bu ñu reyoon Sonko qu'est-ce qui va se passer rien sénégalais yi ma gis dara du xew Maître Ciré Clédor Ly a été auprès de son client Maître Ciré Clédor Ly a été près de son client sénégalais yéen ñëpp ngeen daw bàyyi ko il n'a pas fui yéen ngeen yaakaar ne yéen a gën a dàq daw Sonko wala yéen a ko gën a mën a daw il est il a une très bonne condition physique man na daw mais dawul dawul de dafa taxaw mais ki taxaw moo am ndam moom dafa taxaw jàkkaarloo ak ñoom mu wax leen est-ce que gis ngeen mu dee donc yéen lan ngeen di daw vous courez quoi des grenades lacrymogènes grenades lacrymogènes mais mettez vos masques des la lacrymogènes ñëpp daw abandonné ki nga xam ne yéen ngeen ne moom ngeen gëm Sonko yaay suñu baay Sonko yow la ñu gëm Sonko yow la ñu bëgg Sonko Sonko mais après c'est tout loolu mooy bëgg <laughs> vous ne comprenez pas l'amour je vous donne un petit une petite anecdote de l'amour man de je suis à 21 ans de mariage j'ai tout subi dans ma vie métit bu ne teg naa ko doomu jàmbur bi mettit bu ne teg na ma ko moom and we still together ñi xam-xam nañu li may wax boo leen waree lekkandoo puub sax da ngeen koy lekkandoo xam ngeen luy mbëggeel mbëggeel sacrifice la àndal mbëggeel dafa ànd ak sacrifice du ay yuuxu kese loolu naxee mbay la tudd li ngeen di def naxee mbaay la tudd du mbëggeel naxee mbaay ak tappale la tudd li ngeen di def c'est du tappale et du naxe dara gëmu leen tous naka ngeen di toogee seetaan ton espoir à Ousmane Sonko fecc buñ fi tegoon su démb bu doon Wally Seck mooy tëgg tous les sénégalais jeunes sénégalais nga fa di yëngal seen góora mu yëngal taatam c'est ce qui montre que vous n'êtes pas bu dee góor ngeen comporté wu leen comme góor naka ngay toogee nga seetaan le président Ousmane Sonko <clears throat> Uganda dem leen ngeen xool Uganda Idi Amin moo fa nekkoon bi mu fa jógee beneen dictateur beneen dictateur moo ñëwaat xam nga ñun ñu ngi wax Macky Sall ak troisième mandat Macky Sall bu dee lii ngeen yaakaar pour arrêter sa troisième candidature allez vous coucher bu dee lii lañu yaakaar pour arrêter la troisième candidature de Macky Sall bu dee lii ngeen yaakaar bu dee lii rek ngeen am billahi wallahi tallaay dem leen toog moi je suis déçu je dis je suis déçu comme jamais je suis déçu comme jamais déçu déçu comme jamais bi ma juddoo ba léegi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

ngay toog di dégg bis bu ne ñu lay won ay vidéo chaque jour regardez le président Ousmane Sonko. parce que son convoi était bloqué par la police qui a encore bloqué le chemin. Get down. Get down. mais quel est le problème mon commissaire. nee ko il faut qu'en dégage. pas le véhicule commissaire avec tout ce que vous avez comme dispositif vous pouvez escorter mon véhicule jusqu'à chez moi. je ne sortirai pas de mon véhicule pour entrer dans un autre véhicule. si je suis en état d'arrestation voilà. Est-ce que des porteurs ont le droit d'extraire quelqu'un de son véhicule Hein Je pose la question avant. Demain, demain, arrêtez de faire du fan ngeen ma see gis lu mel nii bi Sénégal nekkee Sénégal ba léegi un fils di d'un pays sàccul fenul deful dara loo xam ne méngoo na ak salfaañe benn benn yoon wala jalgati dara ñu ñëw di la fekk sa biir oto di toj sa oto di la génnee par force sénégalais yi ne cel ngeen mel ni xamu leen lu géej gi riir sénégalais yi les mêmes fils du Sénégal kenn génnul kenn waxul ngeen ne cell vous êtes des défaillants loolu mooy défaillant ñun amuñu pour xeex man ku mel ni man amuma pour xeex li ma leen di wax toujours li ma leen waxoon démb moom laa leen di waxaat tey sama njaboot yëpp a ngi fii samay doom yëpp Amérique lañ juddoo man maa ngi fi sama sox naa ngi fi am nañ fi suñu kër am fi suñu teraanga nekk ci jàmm am suñu liggéey on est en paix awma pour wax ak yéen je n'ai rien à foutre au Sénégal man naa toog fi ma nekk nii lekk cent ans man naa retraité suba mais nu on se bat pour vous votre futur et le futur de nos petits enfants déglu leen cette dame malienne écoutez-la Moi, c'est Maman Grâce. Ce soir, je viens faire cette vidéo-là. Je suis très énervée. Après avoir suivi euh, la vidéo euh, sur l'arrestation de Ousmane Sonko au Sénégal. Là. Et je ne comprends toujours pas. C'est quoi le problème, Macky Sall C'est quoi le problème Parce que toi aussi, un jour, tu as été opposant. Mais Wad a, a, a permis qu'il y ait l'alternance. Et tu es là, ça fait deux mandats. Donc tu n'as plus le droit de briguer un troisième mandat, faut laisser la place aux autres. Voilà. Nous, Africains, nous devons soutenir tous ceux qui viennent pour nous libérer du joug de l'impérialisme. Et c'est ce que nous allons faire. Mes frères sénégalais, vous devez veiller sur Ousmane Sanko. Bougez-vous et restez mobilisés. Sinon, ils vont le tuer comme ils ont tué Thomas Sankara. comme ils ont tué euh, euh, Patrice Lumumba, comme ils ont tué Kwame Nkrumah, comme ils ont tué tout le reste. N'attendez pas que ça arrive et vous allez mettre sa photo sur vos profils. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais réussi à venger Thomas Sankara. Ces criminels, ces assassins sont là en train de circuler, sont parmi nous. Hein? Ah? Macky Sall, où est le problème Ousmane Sonko se rendait à une conférence à son QG. Donc vous, vous l'empêchez maintenant même de circuler Parce que partout là où il passe, il y a des bains de foule. Il fait l'unanimité du peuple sénégalais. Et ça, vous n'aimez pas ça. Mais Macky Sall, si tu as été un, président modèle, mais les Sénégalais seraient avec toi. Si les Sénégalais sont en train de, de, de, de se mobiliser derrière Ousmane Sonko, mais parce que tu n'as rien foutu, parce que tu as encore vendu le pays hein, à vos amis, c'est quoi le problème Donc en tout cas, ces images que moi j'ai regardées là, Ce sont des images qu'on ne peut pas tolérer en 2023. Non. Non. Regardez les amis. Déjà, ces droits sont bafoués. Ils vous posent la question s'il est en état d'arrestation. les policiers répondent non. Mais pourquoi vous l'arrêtez comme ça Vous avez cassé la vitre de sa voiture. Vous l'avez sorti de sa voiture manu militari. C'est quoi le problème hein? Et parmi c'est cette armée qui est venue l'arrêter, là, ces militaires sont venus l'arrêter. On remarque des armées spéciales étrangères. Vous pensez que ce que vous avez fait à Bagbo, lorsque vous avez bombardé sa résidence, la présidence, et vous l'avez sorti de là, vous l'avez emmené à la haie, aujourd'hui on va encore accepter ça Tout ça pourquoi Parce que vous avez peur de perdre le, Sénégal, parce que vous avez peur de perdre la Côte d'Ivoire, parce que vous avez peur de perdre l'Afrique centrale, que vous faites maintenant des manigances. On ne peut plus accepter ça. On ne peut plus accepter ça. L'Afrique appartient aux Africains. Regardez. Regardez. C'est pas On ne peut plus accepter ça en Non, c'est fini. Voilà, l'esclavage moderne est terminé. Terminé. Regardez. Regardez de vous-même. Hein? Là où il y a le rang rouge, là. Regardez. Ça, ce sont des Africains. Ça, c'est pas une armée africaine. Hein? Donc, ce sont des armées que Macky Sall a, a, a au Sénégal. Hein? Pour arrêter Sanko Ils vont inventer, ils vont trouver des mobiles pour l'arrêter, pour le mettre euh, hors, course. Non, non, non, on ne peut pas accepter ça. Peuple sénégalais, mobilisez-vous. J'ai vu que vous avez fait des cagnottes pour acheter des véhicules blindés pour Sonko. Faites-le. S'il faut veiller devant sa résidence nuit jour, relayez-vous, faites-le. N'attendez pas qu'on nous le tue pour après pleurnicher encore. C'est maintenant ou jamais. Voilà. En tout cas, je nous souhaite euh, force à nous que les ancêtres d'Afrique se lèvent et se battent avec nous. Nous vaincrons. Merci. Bye Il faut ñu déglu jigéen bu nekk Mali pour sol t-shirt bu am photo Doumbouya pour ñu prêter attention doomu sénégalais yi di leen wax bis bu ne génn leen ñu xeex xeexal suñu réew. Macky Sall warul woon fanaan Sénégal démb takk der ñemewul guddi yéen xale yu ndaw ngeen vous veillez toute la nuit à faire du te et du lait démb président Ousmane Sonko génn na sol kagulam ngeen gis ko il a montre tous les signes d'un général d'armée ñun tappet yi mbuqat yi ngeen toog ñëpp tiktok ko nag ah Sonko toj na fi ah Sonko rajaxe na fi ah Sonko def na lii bu ko dara daloon ñëpp statut ah vraiment maa ko bëggoon ah moo fi nekkoon moo waroon changer senegal Sénégal du changer bu ñu xeexul Sénégal bu mu bi du mas a dagg boo leen toogee seen kër yi di wax doomu xaram yu mel nii caga yi ngeen di bàyyi ñu dem ci ci télé yi di duulakat dajale aji saar lii aji saar moo defoon fii aji saar dafa dof aji saar dafa nangam ngeen bàyyi ces ces encagoulés de Aïssata Diop Fall doomu xaraam yi ñu nekk ci réew mi ak seen gémmi ñu dëng yi ngeen bàyyi ay RFM ay TFM doomu xaraam yëpp seen intérêt moo leen fi bàyyi ils sont là pour leur intérêt personnel crypto personnel suba dinañ ñu indi laat beneen deal te ñu ngi koy marché ça y marche ils vonnu nous dire que Adji Sarr est folle j'ai vu hier la sorcière elle est sortie encore elle va nu dire que Adji Sarr elle est folle waaw Adji Sarr wutal ko ay kayitu doof comme ça son du ko mën a topp comme ça sénégalais yi dee ils ont perdu leur vie c'est des lâches ces personnes c'est des lâches Sénégal amul man man gëw ne dëkku jullit la bu dee dëkku jullit la man dina ma jaaxal Sénégal bu dee dëkku jullit la man dina ma jaaxal lool ndax ay julit du ñu ragal julit nit du ragal du ku ragal yàlla du ragal nit mais Sénégal c'est le contraire nit la ñu ragal ragal ragaluñu yàlla mat nañoo fanaana njaaloo ci seen buntu kër yi mën nañoo fanaan a naan sàngara ci baar yi mën nañoo fanaan ci discothèque yi te pourtant de bu ñuy romb gis euh, euh, El Hadj Ndiaye mi ngi xool côté bi ñu ne ah El Hadj ngi ne la de defal nii bu gestul bu bu mu la gis ragalu leen yàlla nit ngeen ragal man ngeen toog fii yépp ku nekk di firi ay aaya alquran boo waxee yaa tout le monde c'est des marabouts ñëpp borom xam-xam lañu ñëpp xam nañu lépp mais quand il est temps de vous sauver la vie vous vous courbez et vous donnez Macky Sall vos derrière vos culs c'est lâche c'est lâche c'est lâche xale yi doo leen dara man dama leen xeeb xale sénégalais kullu xale sénégalais seen grand nee na dafa leen xeeb ci kaw ba ci suuf na damaleen leen parce que lii waxante wuñu ko woon ak yéen waxante wuñu woon lii ak yéen le président Ousmane Sonko yéen da ngeen ko joxoon garantie soo ko laalee soo ko laalee dinaa la dóor biñ ko laalee ngeen daw soo ko laalee dinaa la dóor soo ko laalee dinaa la door ngeen daw vous avez fui vous avez failli votre mission doo leen ay jàmbaar doo leen ay góoru yàlla ay tappet ngeen te xale bu tappet moom moyul ma bu nekkee mag li muy doom xale bu tappet mooy mag bu tappet te mooy jur tappet yan a fi toog soo ko laalee soo ko laalee dinaa la dóor ngeen hymne national soo ko laalee dinaa biñ ko laalee loo leen def koo leen dóor vous avez bâtonné kii kan ngeen bastonné kan ngeen dóor Vous avez battu qui À Kermassar, vous étiez des dizaines de mille, voire des millions. adduna bi yëpp dañu gis ngeen toog seetaan ñu këf président Ousmane Sonko maanaam li gën a important ci suñu addina l'homme le plus important de l'histoire du Sénégal ngeen bàyyi ñu këf ko yóbbu nii ngeen bàyyee woon ñu jël sëñ Touba yóbbu ko exilé ko nii ngeen defoon nii la Sénégalais yi defoon bàyyi sëñ Touba Ahmadou Bamba ñu bàyyi ñu exilé ko yóbbu tubaab yi ñoo ko defoon julli ci yàlla ak yonentam bu tedd bi yaayam bu liggéey liggéeyu ndeyam de moo ko fi indiwaat du yen de du seen njàmbaar de du njàmbaaru sénégalais moo ko fi indiwaat de buñ fi déggee sénégalais bu ne man maa demoon xeexal sëñ Tuubaa bu mu ñëw nga dégg lu ñaaw loo xam ne dina génn sama gémmiñ ñëw ci yow sénégalais billaay doo dara you are nothing you are absolutely nothing You're a piece leen dara naka ngeen di gëmee seen bopp ñëpp di ngand ngand lu ko fekk mi ngi sol xaftaanam di ngand ngand lu nee ñu ñoom président Ousmane Sonko la ñuy exporté président Ousmane Sonko bi mu leen soxlee ngeen daw ñëpp daw ñëpp daw bàyyi ko vous avez tous failli votre mission ngeen daw loo leen di daw mais allez en prison mais battez-vous mais buvez du grenade lacrymogène xanaa doo ay xale vous êtes des enfants vous êtes des jeunes dawante leen dàqante ak ñoom ñoom lu ñu yor yor leen seeni ay xeer de faire face pourquoi pas mourir si vous devez mourir kenn du dee te waxtu deeyam jotul soo dee sama yaay juraat deewu leen kenn demul yéen ban façon nit ngeen yan façon nit lañu yéen ngeen defe ne buumu njaam pare ngeen pour mu dagg Sénégal non balaa maa dee ñuy ñuy taxé ay ay leader politique ana diw ana diw ana xale yi c'est votre futur qu'ils sont en train de bafouer laaj leen man ñi ma xam Amérique gii ma dëkk Amérique ñun biñ fii ñëw dans les années dans les années quatre-vingt yu mujj yi est-ce que vous saviez que sénégalais ñemewul jéggi cent dix laaj leen ñi xam cent dix c'est une rue boo xam ne sénégalais ñemewu ko jéggi laaj leen sénégalais yi ma xam dama daan xeex ak booy américains yi chaque jour fetalante dóorante rayante ba ñun tey sénégalais on est indépendant ici ñun Sénégal sénégalais africain ñun dañu xeex suñu indépendance Amérique j'ai pris de balles de de fusil sur mon dos ay balu fetal dóor nañ ma ko ba tey ñun dañoo xeex ñun dañoo xeex ba xeex jeex ba tey ji bu marché amee foo leen may gis je suis devant il m'insulte il me tape il m'attaque yéen a ngi koy gis même fii Amérique damay génn ñu attaqué ma di saaga sama njaboot di ma attaqué di xeex ak man di ma saccagé sama adduna yëpp sama liggéey ñu koy tëj Sénégal fi may wax ak yéen nii fa wax ak yéen nii tey j'ai peut-être cent quarante millions au port de Dakar qu'ils ont bloqué là-bas. C'est toujours comme ça. Mais pourtant, xeex on se bat. On se ngi Nous ngeen toog seen kër yi bu ñu waxee waaye yéen ngi seen oto yi Amérique seen doom yi sama doom yi fii la ñu juddoo man moo mawtuma leen c'est des Américains ku ko mer kalaame ko yàlla man dama ñëw xeex man dama ñëw xeex dama xeex Je me suis battu toute ma vie pour mener une belle vie pour ma famille. Je me suis battu. J'ai travaillé, me battre, me battre, pour que mes enfants aillent en université et conduire des voitures. Comme Koukoumou Nekhul, Kalame Kosabaï, Nel Sabaï, pourquoi tu n'as pas travaillé comme il a fait Ngentok, le président Ousmane Sonko a besoin des hommes. Aïgour Yalla le sohla. soxlawul ay ay góor jigéen soxlawul ay fenkat ak ay woykat ak ay fecckat ak ay nit yuy fotow il n'a pas besoin de ça su bëggoon loolu mu dem seetaani xam nga leen lappatoo yaa nga fa di tëgg seeni musique mu dem seetaani leen c'est l'homme le plus populaire de l'Afrique ngeen bëgg ko c'est l'homme le plus populaire ngeen bañ ko c'est l'homme le plus populaire dans l'histoire de l'Afrique benn de foule yi nga xam ne benn doomu aadama mi ngi koy yëngal kenn mësu koo gis dans l'histoire ngeen bëgg a toog fi ngeen toog di wax di fecc di TikTok vous êtes les champions tiktokers du monde vous êtes les champions youtubeurs du monde vous êtes les champions de Facebook du monde mais où est le terrain sénégalais lu mu jël il est champion xoolal football bi rek Afrique on ne champion mais pourquoi doo leen génn xeex gisu leen ne nit boo góorgóorloo da ngay am ndam vous ne voyez pas ça déçu déçu je suis vraiment déçu désolé mais je suis déçu